بذنب الحسنات زين المحسنات Asfiya TV mooy seen bi mënul ñàkk waaw mooy seen bi xarañ lool ci liggéeyu sëriñ bi te dëkk gëstu. dawal YouTube nga bind Asfiya TV te abonné bës cloche de notification bi ngir mën jot bépp vidéo buñ mën a dugal. الفقه التيمي لانزل اسماعيل الكوسيني لانزل كل ما يفعل Thank you. asalaamaaleykum mbokk yi safa baaxoo ànd ak yéen waxtu nekk seen seen Alfiqh TV ñi ngi am mbégte kontaan te di leen ziar baax a baax tey nag euh, bokk ci bis yi nga xam ne ci bisu weer wi la di sunu weer weer la woo xam ne ne amul lu dul moom muy weeru safar safar gi nag la ca sëriñ bi waxoon ak digle ya euh, ku nekk dégg na ko ndax ku ne xam ne ne bis bi bisub sëriñ la te murit amul leen lu dul ndigalu sëriñ Tuubaa li nga xam ne moo lu ko digal sëriñ bi koo xam ne nii sa mbég mooy sama mbég euh, sama mbég mooy saabu su bis bi dikkee na ma santale sama borom loolu nag waral na euh, mbokki taalibe yëpp baaxoo ci euh, xam nañ ne mbiri Serigne Touba dafa xajatul ci ñetti fan ci le 17 safar 18 ba di ko def di ay ndaw ay tout tànk yi gën a ci marché bi àndoon booloo boole seen ñaq ak seen ñoqi jox seen addee Serigne Touba waajal fi ay berne yu am solo ngir fas yéene ko barkeeloo ci bisub Serigne Touba boobu ñuy waajal ndax ku ne Touba moom tukkeem bépp li ko waraloon mooy sunu yitte tukkeem bépp li ko waraloon mooy sunu aaju faju ak sunu raw moo tax ko ne dégg nga Sëriñ Touba zaba wa xaybati an allah an anala minhu jaar wa an akoona saafihan li qawmi wa an akoona xaadiman fi dawmi moo tax nag xam naa ne kon danañ eh, gis kenn ci ñi xam ne bokk nañ ci membre organisation yi di eh, Modou Boussa Niass taalibi Sëriñ Modou Boussa Dieng ñu ngi koy baax baax di ko ziar Sëriñ Modou sëñ Sall maa ngi lay ziare waaw dañoo gis eh, ngeen def benn mobilisation yéen ñi nga xam ne ñoom doon ay ndawi bi ngeen def li nga xam ne moo de safar waaye nag ngeen def ko ci anim bu gën a rafetee ana la sabab lii te lii nekkut bokkut ak kuréel bi nga xam ne moo nekk ci marché bi kuréel bi nga xam ne moo gën a féete ndaw la. waaw ngi lay nuyu Serigne Saliou ginnaaw ban sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa di am mbégte bu baax a baax ci bis bi bii bis bi nag li ko sabab dafa bokk ci xam nga ay murit moom fépp foo xam ne dan fa baax di fa dañ fa baax di dajee rek du du ñàkk ba lu ñu jóg ñu waxtaanee sëñ bi. danoo toog di waxtaan suñ xel yi sëñ bi ñu waxtaanee sëñ bi ba ci ak idée bi ñëw ñu daan ne na nañ taxawal benn safar boo xamante ni bu heure bu safar gi digg see rek dañ koy taxawee yàlla suñ boom def mu gars yi moom ay murid lan ñu ñoom ñëpp jàpp ci ba lii lépp mën taxaw moo waral yëpp demee nii ñoo ngi sant bu baax nag ñi nga xam ne ñoo ci jàpp baax ndax engagé bu baax a baax te xam ne ñoom ñëpp ay ndaw lan te liggéey sëñ bi rek moo leen ñor ndax gars moom képp koo xamante ni yaa ngi leen woo rek da leen woo ci sëñ bi ñoom moom. waaw ndax li ma bëggoon laaj mooy ndax liggéey bi yaatu na ba marché bi bokk nañ ci wala deen ko defa mu doon door waaye li ci seen kanam moom fas ngeen leen boole ci waa marché bi yëpp. waaw na ne yaat na yaatuwul ndax am na ñoo xam ne jotuñu ci ndax manque de communication la xam nga manque de communication des fois day am te it yor mu njëkk du du demee comme ni nga ko bëggee. yàlla dogaloon nag bi bi loolu amee am na ñoo xamante ni fekkuwun bi ni bi ni dogal loolu yàlla def bi ñu tijjee benn groupe ñun ñëpp ñu nekk ca di ci yëngu muy am ñuy convaincre nit ñi am ñu ñëw am ñoo xam jot ñu cee jot mais bi ñu demee ba nga xamante ni ñoo ngi ci àgg sa càppaandaw ga la ñu bëri doog wax nu ko ñu bëri naqar la ko nag nga xam nga ay murid moom yëfu murid moom am na ñoo xam ne buñ ci buñ ci yëgul dañuy gis seen bopp ah, ñu ngi ko jégalu baax loolu nag waaye liggéey sëñ bi moo liggéey sëñ bi moo toll foofu ah, waaye xam naa ne incha allah yoon mu njëkk moom ni nga ko bëggee ni nga ko bëggee du ko demee waaye incha allah rek beneen yoon dinañ ko gën a yaatal ba ñun ñëpp gën cee jàpp mu gën a yaatu ndax liggéey Sëñ Tuubaa mu amul xaj amul seen lu mu gën a yaatoo rek gën. jërëjëf euh, Modou Bousso euh, ñu ngi am mbégte kontaan baax baax cant ak ngërëm ñal na la kon mbir ma ngi nonu képp ko xamné amon amoon nga loola naqari ci bis bi yëgoo ko won mal de communication la comme ni nga ko waxee waaye nag fi ngi tollu nañ xamné ne amna am na nak amul ligé euh, nañ duggal nak sunu jëwriñ Serigne Fallou ñass mom mi nekkon ci walu li nga xamné modi walu copar yi moko ko doon yor Serigne Fallou ñu ngi lay jaar délo ziar bu wër assalamu alaykum wa rahmatullah yéen waa Alfiq TV ma ngi leen siyaar bu baax di leen mm, sant bu baax a baax seen liggéey bu rafet bii ngeen def xale yi nag wax dëgg yàlla maa ngi leen sant bu baax a baax a baax maa ngi sant bu baax wax dëgg yàlla ndaw lan yoo xam ni wax dëgg yàlla déggoo noon lool wax dëgg yàlla ñooy xaacandoo di dóorandoo waaw wax dëgg yàlla lu mm, mas a xew lépp loo xamante ne mas nay xew saa yu ñu leen ko waxee rek wax dëgg yàlla sa yun len ko waxe rek moom amul benn baat li nak liggéeyal Serigne Touba rek wow. taxo sering a jóg waaw liggéeyal Serigne Touba rek moñu taxo tax kep ko képp koo si sering ñor na la dal ñing lay wo ñinga ñew ñu liggéey waaw. Euh, Serigne am solo trop comme ni nga waxe nga ñu gis nga don denc walu koppar te koppar marché nak don lo xam ni lu doy war la naka nga def ak noko dundé ci ànd mi. mom kay xawna doy war mom kay yor alalim bolo mom xam nga ne mom lu jafe la lu jafe waaye loolu yëpp nag nan ñu ko joxe woon sàmmee nan ko ba ba ba bi ñu ko laajee jox na leen ko ci niñ ko bëggee waaye loolu lépp nag du sunu du sunu jàmbaar du sunu kii daal loolu lépp nag euh, tawfeexi sëñ bi la wax dëgg yàlla tawfeexi sëñ bi la wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax a baax xale yi nag ñu jàmbaaral na maan di nga mën a xale yi sax wax dëgg yàlla xale waaw waaw wax dëgg yàlla yoo xam ne si ne ne moom yéen def jëfi mag moom daanaka nekkatoo xale moom wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax xam naa ne wax dëgg yàlla kenn ku nekk trente-six mille lan la laaj wax dëgg yàlla nan ko laaje woon defee nañ ko noonu wax dëgg yàlla dara manqué wu mm. waaw dara manqué dara sooxe wu mm. waaw ñi sant rek sant baax a baax yéen ñi tamit ñi sant baax a baax tey ñaan nag at di ñëw mm. mu dàq lool nag ci barke Seydina Mohamed ñi ngi sant Serigne Mountakha mu yàgg fi lool ta teweer wér di sant sama Serigne Cheikh Mamadou Al Basir Mbacke Falilou ñu ngi koy sant baax ñu ngi sant magi marché bu baax a baax wax dëgg yàlla ñoom it nag lii lépp ñoom taxawaay la wax dëgg yàlla ñoom it xeebuñu leen ci benn côté ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax ngeen jëf jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh Mouhamadoul Fadilou Niass di taalibe Serigne Bassirou Mbacké moom Cheikh Mouhamadoul Fadilou sa ñaane am na solo trop te it li nga wax am solo lool mag ñi nga xam ne euh, ñoo nekk ci marché bi ñoo xotti yoon wi rek njëkk ñu ko def 2018 la njëkk a def fi nga xam ne moo de safar yàlla dogal 2019 mooy loolu nag tey ndaw yi xam ne euh, lenn amul lu dul liggéeyal Serigne Touba kon nag buntu baa ngi noonu comme li ko waxee yoonu murit am na soññe waaye amul liggéey kon nag képp koo xam ne yëgoo ko woon bu loxo yëgu ma ko mbir maa ngi noonu mais at mi 36 000 la ñu laaj def ko ci Serigne Touba ñu jàkkaarloog euh, sunu xarit euh, Eumeu Diaw ne bokk ci euh, responsable bi nga xam ne moo di safar gi bokkoon ci wàllu organisation bi seex bi ñu lay ziar. maa lay delloo ziar bu ñu ziar bépp ñu ziar ñu nuyu ñëpp di leen ziar di jégalu bu baax a baax ci kàddu yi ndax wax moom xam nañ ni wuñ ko waaye tey moom bi bésu wax la ndax comme que sëñ bu mag bi la ñuy liggéeyal moom bu ñuy wax loo par il faut nuñ mën a def rek dinañ wax soobee yàlla bisimilah. jërëjëf ah gis nañ organisation bi macha allah am na yoon waaye rek dafa mel ne ab table la naka ngeen waajalee euh, déwén incha allah te ñaan yàlla mu bàyyi nu fi. waaw dañ koy commencé ci tay rek jëmale déwén ci tay lañ koy commencé tey jii nga xamante ni la fukki fan ci weeru safar. ci lañ ko ci lañ ko bëgg a commencé waatee jëm déwén ndax. sëñ bi doo nga tax ñuy def sëñ bi doo kon ñu ci lenn loo loo xamante ni maanaam bokku ci sëñ bee tax ñuy def moom la ñuy liggéeyal kon tey daal lañ jàpp ni ci lañ koy commencé waatee jëmale déwén te bu fas nañ yéenee tamit bu déwénee li ñu def nii ñu def lu ko lu ko du lu maanaam lu ko doublé lu maanaam xol la ñuy waxee. moo waaw loolu sax mooy dëgg ndax Serigne Touba ku koy liggéeyal comme la ko Serigne Saliou waxee Serigne bi moo lay jox ay jumtukaay yoo koy liggéeyloo. kon nag yàlla na yàlla gën a sàmm te taxawu nu te aar nu barke Serigne Touba euh, bu déwénee mu dàq. ay yoon yoon te xéewal yeeg yëpp am ci ana lan ngeen lancé ndaw ñu ñu waaw ñu ngi leen maam ñu ngi lancé suñ comme suñ moroomu jeunes yi nga xamante ni ñoom lañu fi nekkal ak ñi nekkal ci marché bi ñëpp même ba ci ñi ci ñi fi nekkul sax ñu ngi leen ciy woo ndax liggéeyal suñ Tuubaa amul kii ci la bokk ak kii bokk si ñu ngi ciy woo ñëpp képp koo xamante ni yaa ngi si marché bi ak képp koo xamante ni nekkoo si marché bi te gis li ñuy def nii doy la ñu ngi lay woo ci liggéey bi ndax suñ Sëriñ Tuubaa rek la ñuy liggéeyal liggéeyal Serigne Touba nag amul segg naan kii ci la bokk ak kee bokku ci ñu ngi ciy woo ñëpp képp koo xamante ni xool nga ni li ñuy li ñuy doxee arrangé na la rek wala doy na la rek yaa ngi ci biir bul xaar kenn di la ci woo. jërëjëf euh, Ama jaw bokk ci euh, ndaw yi nekk ci marché bi jeunes yi kon nag euh, wax jaa ngi noonu ubbi nañ bunt yi xam naa nag dañuy teg foofu sunu baaram ba ci kanam wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf. دارا بے mbokk yi di leen delluwaat di leen baax a baax te di leen ñaanalaat te ñaanal Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général du murid di ñaan suñu mu guddal fanam wéral ay caram booba tey gis ngeen nga xam ne moo di safar bi nga xam am ci fii ci marché euh, Ocass ci jaaykatu jën yi jógee nañ fa def ay berne ñëw fi nga xam ne moo di Ndiobentaay xam ne nag ñu ngi feggoog suñu benn mag suñu xarit euh, Moustapha Dieng ndeysaan di ko jàmbaare ku bëgg xale yi waxtu nek dañ ko sellu ci ba xalé yi di jël mbir di ko taxawal engagement bi moom mu jël fasiyena and ak ñom mustafa ñi ngi leen nuyu di la jaar di la gis tay nga and ak gone yi ci liggéey bi. bismillahir rahmanir rahim rahiim bisimilah mina seytaan rajim Serigne Saliou ñu ngi lay nuyu di la fay di nuyu bépp xalé bo xamni ne nii yaa ngi liggéey si marché bi di sant Serigne Touba bu baax di santa Serigne Touba di santa Serigne Touba di ñaanal suñu taxala bi sur yalla suñu borom may ko gudd fan ak wër geeram waaw xalé yi dama kontaan tey parce que dama gis ay xale yoo xam ne nii seen wàllu liggéey seen wàllu diine dañ koy jox ak xam ba mat sëkk yéenante jàmm seen biir topp seeni ginnaaw mag bépp liggéey boo xam ne maanaam ñu ngi ko sumb surtout si yoonu Serigne Touba dañ si ànd ak positif kon xale yi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi ay jàmbaar lan ay royuwaay lan ba pare seen alal boolewul ak kenn surtout nag bu seen moroom xewlee. muy xew-xewu jàmm ak safaan ba lépp dañ ci wane seen bopp kon tey damay sawar si ànd ak xale yi si liggéey bu man di doon parce que gisuma leen si ay caaxaan liggéey jaamu yàlla seen Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul kon bis bu mel nii boo gisee xale yu mel nii taxaw si da nga see war a taxaw ak lépp loo si mën ba pare di ay xale yoo xam ne xale yi jox cër seen morom lan kon xale yi ñi ñi ñaan suñu borom may leen gudd fan may leen wérgu yaram gën leen a doole seen wàllu liggéey parce que xale yu am jom xale yu am jom def na mbir mu rafet mbir mu rafet moo xam ni na fi mag jaare woon taxawu ko def ko ba yàlla suñu borom dogal ndog am defuñu ko si année bi jàll. la bàyyi dañuy euh, ñëwaat ak si benn question bu ñu la laaj tey ni nga gone yi xam nañ ni ñun ñëpp ay ndaw lañ waaye menn mag lañ fi gis muy yow euh, te wax nga ko ci si biir wax nee nga dañoo ànd doon benn booloo joxante cër. kon ban conseil nga len di jox xalé yi gis nga ko ci ñom ñu gën ko sam manam xalé conseil bi nga xamni mom la len di jox moy fi nga xamni fi lañ tek seen tànk buñ ko teggi fi ñu tek seen tànk buñ ko teggi lepp lo xamni manam xewna rek nan ko defé ni ci yar ak teggin top seen ginaaw mak parce que tay ji mbir mi kep ko xamni manam teewo rek yalla suñu borom da dogal ndok am mais. mag ñëpp bëggoon a teew waaw di ñaan rek marché bi jën bi nga xam ne si la nekk di ànd di liggéey yàlla suñu borom gën ñoo dooleel musal sa sa musal seytaane si kàttanu yàlla incha allah. jërëjëf kon loolu lañ ciy déggee li Serigne Touba naan fakkullu man baadal waxta chaqari ilal ko def dara waxta ndaw lañ waaye fas yéene yéen a gaawantu ci seen ndaw ngir eh, ci liggéey Serigne Touba waaye fas ci seen waxtu ndaw it ngir mën a boole doon ay eh, ñu jub ndax ndaw ay ñooy nekk ay magi ëllëg kon nag dégg ngeen comme ni ko Serigne Moustapha waxee nañ bokk ja jàppandoo dafa mel ne dafa am lu mu bëgg a wax. Serigne Saliou. Hmm. dama la xamal ne la rek xale yi damaa kontaan si ñoom. Hmm. xale yu ma kontaan si ñoom la parce que si positif képp laa leen xam te li ma la wax nii la lu ma gëm la nit mos mënu maa wax loolu lu ma gëmul xale yi ay jàmbaar lañ te danoo doon benn danoo doon benn seen wàllu liggéey si lépp kon sa kaw sa kanam rek waaw incha allah jërëjëf conseil bi xale yi benn ci man ak samay moroom ak ñi ma féete mag ñi nga xam ne maa leen mag maa euh, xam ne féete nañ ma ko kon nañu gën a jàppante te euh, maanaam gën a booloo doon benn comme ni ko Moustapha Dieng waxee rek di ànd bu rafet ndax alxuraan dafay wax naan wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ñu jàppante ci buumu yàlla gi te ñooy ci doon benn te xam ne moom liggéey Serigne Touba faaw mbooloo def ko kon nag mbir maa ngi noonu fii ci diwaanu marché Ocass dañu ko ne yéen safar gi nga ñu def joxe te jëmmi Serigne Touba rek tax di baax baax képp koo xam ne yaa ngi doon ànd ak sunu chaîne Alfurqan TV comme ni la ko waxee rek Alfurqan TV la chaîne islamique au service de la population sénégalaise de monde entier seen bëgg-bëgg rek mooy sunu yitte waaye nag seen bëgg mooy sunu bànneex Serigne Saliou imam ne woon euh, fi nga xam ne mooy jàkkaarloo ak yéen taalibe Serigne Cheikh Amadou dem wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di leen ñaanal kenn te yàlla yokk xéewal te yokk poos yi te barke Seex naa Seex Bamba Xaadimu Mustafaa wa salaamu aleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf